Modou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf dëkkee digle ca ngaay te sangu mooy Macky yëral xët mu njëkk l'Observateur li ko journal bi gisal mooy Macky mooy kilifa guy parrainé ay contre kuy dooleel borom jikko yu bon yi promoteur vulgarité ak anti li waral coow li journal bi nañu moo di keroog dañu ko gis moom Macky Sall mu taxaw di photo ak benn femme bu naan Awush di benn xale bu jigéen boo xam ne làmmiñ yu ñaaw ak wax ju bon waxtaan ak moom te Kaliphone ay saaga ay wax ju ñaaw la dëkke ak ñoom defal na fit ab audience Jibril Ngom di mandataire bu yeewi askan we ca Matam mooy waa ji dawoon yóbbaale fils de parrainage yu yeewi askan wi ñiy wax ci loolu pare guñu mu dem ci Dubaay taxaw ak koo xam ne fu ñu ko tuddee ñépp ne cam di awushkiti bay photo ak moom journal bi nañu li jaaxal ñu bari ci Macky Sall mooy fu mu taxaw danaan dañoo war a xeex dérive yi am ci réseaux sociaux yi te heure may bëñ ñi yàq réseaux sociaux yi sour soi Sall nag moo neex nu muy régler réseaux sociaux yi ne ginnaaw Kaliphone dib saagakat bu mag keroog Macky Sall awushkiti la taxawal bay photo ak moom awuskiti moomee waral coow leeg mbambuli mooy kan sursoi nañu awa sekk la tudd ci mbiri Ousmane Sonko yi ci la ko ñu bari xàmmee ay live am la doon def ci réseaux sociaux yi fu ay saaga ñaawee mu dagg teg di saaga institution réew mi di saaga ministre yeeg magistrat yi ci réew mi ba daan ko saagawaale sax moo Macky Sall journal bi di laaj ndax moo Macky Sall mi war nañoo waxati dara ci dérive yi am ci réseaux sociaux yi ki fi wayoon réseaux sociaux doonatul candidat ci élection présidentielle yi 2024 yi nee na it bi di fekkee ma ci boole ànduñu ak kenn jamono ji point actu tegal ñu ci ne moom Youssou Ndour teg na ci ne jamono ji li muy waajal mooy élection législative yi ci présidentielle yi mu ne ànduñoo kenn mi ngi toog di déglu ba gis ku ko doy ci réewum Sénégal mu jàppale ko borom mottali yéene di Khalifa Ababacar Sall Les Échos mi ngi ñuy wax ne la mu yéene woon ci Fuuta yéene ji matul ab tournée la fa nañu bukki ba leen màttoon ca Fatick moom Khalifa Sall ak gàngorom bukki boobee màttaat na leen ca Fuuta ab convent la ñu def ne dañuy dem Fuuta mottali yéene waaye gendarme yi ñoo leen bloqué dëpp leen ñu dëpp daje ak moom Khalifa Sall ci xët mu njëkk Le Quotidien ci ñool ñool yi Ousmane Sonko nekk ak justice bi ca lay wax nee na yéeg ak wàcc yi Ousmane Sonko nekk ak yoon moom mii di Khalifa Sall dund na ko ñaar fukki weer ak juróom-ñett dara wala ci pourvoi en waaye daanaka ku ci nekk ci ñoom la la Cour suprême wax mooy doxal foowi li ñu warut a foowi ci xët mu njëkk Walf Quotidien ca centre cardiopédiatrie QMO ba ci hôpital Fann journal bi nee nañu lu ëpp junni xale nga fa amee maladie cardiaque yu ñu war a opéré ñu toog di xaar li ko waral journal bi nee nañu moo ca centre ba mënee su fa opéré lu weesu ñaari xale për bés bi le jour xëy moom it ci wàllu wér géram Yohani du wax mooy kan gang di ay bi nee nañu ñoo def lu doy waar ca base